jaaxaluma ndax lii raam ci ñag bi la jëm olof Njaay ko wax kii tey nekk Guinée mooy président ti lu dara ñu di ko tuddee Alpha Condé nga xam ne 2010 gañewul élection yi lu ëpp juróom fukk ak benn cinquante et un pour cent yu tegal presque cinquante deux pour cent au premier tour ñu foqati ndam lu rëy bi li mu am jox ko am fukk ak juróom-ñett dix huit pour cent loo xam ne toog nañ juróomi weer pour def deuxième tour bi alors que premier tour le Cellou Dalein Diallo jàlloon ba pare loolu nan la mën a ñooñu nga xam ne militaires yi ñoo leen fa tegoon muy seni ku ñuy wax le général Sékou Ba Konaté jiite ko ànd ak premier ministre Jean-Marie Doré de la transition mooy bañ fa jëlee le capitaine Dadis Camara ñu teg fa Sékou Ba Konaté ak Jean-Marie Doré pour ñu préparer élection présidentielle 2010 ñoom ñu ne Cellou Dalein du fi falu teguñu ko fenn ndax ci yëfi xeet te loolu du yoon ndax seelu moom dafay dajale ñëpp pël yi malenke yi susu yi ku nekk Guinée ku ne alaaj sew danañ yàlla tàllal na la loxo pour liggéey ak yow pour Guinée nekk benn jëm kanam xam ngeen Alpha Condé moom day day xaajale xeet yi moom seytaane seytaane seytaan mooy Alpha Condé 2010 Sénébi ni moom amul résultat ratoma daf koo réer noonu lañ jaar ba ni kon Cellou du jàll premier tour ndax bu ñu ko ci boolee ratoma nga xam ne Cellou ko gagné lépp Cellou day gagné loolu jàll Cellou ne bàyyi nañ dem garaawul kii yàgg na xeex ak Sékou Touré ak Lansana Conté màgget na nañ ko bàyyi rek jàllul ko day rey nañ bàyyi rek ñu bàyyi ko nguur gi ñu dem ba mille 2015 mu ne ku kaw sàccaat élection yi ñëpp daan seetlu lu muy seetaan day seetaan waa ji di sàcc rek mu ne bàyyi leen ko comme jaral na ko moom mu rey ñëpp jaral na ko ñàkk fayda ñàkk jom comme màgget la te ñaari mandat rek la war a am na jeexal mandat bi deux mille vingt jot Alpha Condé jeexal ay mandat mais mu ñàkk jom ni day changer constitution bi pour am troisième mandat bi mu desee ay weer pour ñu ate pour ñu vote mu def mu mu jalgati constitution bi dem troisième manda mais selu xam na ni même bu bokkee dañu woon duñ bokk mais bu bokkee da koy duma parce que moo ko ba sa mën fu ko fekk duma ko ndax doole ji daa laaj Cellou Dalein Diallo moo ko yor mais bi ñëwee deux mille vingt ñu bàcc bàccal ko bàcc yi méttee métti moom Alpha Condé dañ ko bàcc bàccal bu baax mais comme bii pas Cellou Dalein Diallo yeewu na ci sàcc gi xam na ni gars yi dañuy doxalee mu teel leen a jóg wut lu ju selam wut expert ñu daal di centraliser daal di boole li mu am yëpp ci bureau de vote bu nekk yow nee na fa kenn jël trent 32000 mille dans les bureaux de vote ñu ko toogal jël PV yi yónnee ko. état major seen logiciel bi génne ko Cellou Dalein gagné pour bañ ñoom ñu ñëw wax leneen mu leen mais man gagné na mu jóg jëkkalanteeg ñoom ndax xam na leen xam nit xam jikkoom xam jikkoom moo ko gën xam na seen jikko sàcc googu ñu yore ay sàcc yu bon lañ mu xam seen jikko yu bon yooyu mu daal di jóg wane boppam. wane lim am loolu kay warul naqari kenn ci tàng-tàng bi rek ñu ne way seelu li waru koo waar daa war a nekk muy nekk ay baldi lay nekk ay voyou ay seytaane ay sàcc ku leen di nekk pour ñu ne gañe nañ te gañewuñ ngay nekk ay sàcc ñu amul jom amuñu ngor ay seytaane gën nekk leen pour ñoom ñu wax wax la yow yaa gañe duñ ko ba sa wax mu ne moo gañe sama gars yi rek jaaxle dof mais booba nag waa CEDEAO CEDEAO Union africaine Alpha Condé jënd leen jox leen ay xaalis ay million ñu sedd ko ñu bés leen ci benn hôtel am na sax benn bu ñuy wax Palma Cayenne amoon na benn seni bis bu fa nekkoon te dajale ay résultats di ko falsifié ñu bés leen. ñoo ñu beesu leen ci beneen hôtel kalum ñu séddoo xaalis ndax lan ndax ñoom bu ñu ñëw gine xam nañ ne Alpha pare na pour jënd leen luñ bëgg mu jox leen bu ñibbee ni Alpha moo gagné pour ndax waa CEDEAO président CEDEAO yeewu leen seen représentants yi Guinée ay sàcc lañu ils sont corrompus dañu ne jënd lii gàcce la union africaine def benn communiqué toog def conférence de presse daan lépp jaar na yoon waa bi sa élection lépp mën na jaar yoon mais compte bi kay boobu importance bu lépp jaaree yoon ba pare ñu sàcc ki war a falo kon lépp jaar na yoon ñu waxuñ dëgg ah, dañuy kàcc c'est pas vrai mais dañoo dañu leen a jar dañu leen a jënd jox leen xaalis c'est ça la vérité léegi nag Guinéens yi dañoo muñ ba sonn aye na ñeen ñu voté Sénégal tëj frontière yi jaay leen doole sàcc leen waaye malgré tout Cellou Dalein Diallo gagné na ndax Alpha Condé xam na ni Cellou may gagné Sénégal mais yooyu bu jàllee CEDEAO ngir yàlla dimbali ñu Union africaine dimbali leen ñu dimbali leen Guinée Guinée sonn nañu le peuple guinéen est fatigué CEDEAO dafa am solidarité bu leen seetaan Guinée muy basculer dans la violence muy muy daanu ci ay rayante non amul leen droit seetaan seetaan ci sot la bokk président yaa ngi ni mut yeewu leen jàppale leen Guinée ndax jàppale Guinée du jàppale Guinée de jàppale Afrique la l'image de l'Afrique une image d'une Afrique respectée dañu war a jox cër Afrique Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales Afrique boobu lañ ni dañ ko war a jàppale Afrique boobu méritéwul ñuy seetaan ay doomam ñu di leen noot di leen mugal ku ko def dof boobu ñu wax Alpha amul jom amul ngor amul fulla amul fayda di rey ay xale yu ndaw ay bébé il les ay bébé ay xale yu ndaw mu di leen massacrer non jóg leen le monde entier jàppale Guinée ngir yàlla ndax Afrique méritéwul lii ndax Guinée mën a liggéey jëm kanam ak président El Hadj Cellou Dalein ak Guinée yi bëgg liggéey moom Alpha Condé sur la touche Alpha Condé na dem na dem a dem a dem jërëjëf.